ñu ngi lay ñaanal fan bu gudd waaye maa ngi koy ñaanal le président son excellence Ablaye Wade 95 ans yàlla na ans sans ordonnance yooyu nga dund ans sans ordonnance ñun ñun ñëpp nag ñu dund 120 ans ordonnance te yàlla def jàmm ci réew mi jàllu jéeri yow oot mii yaa nar a tojaat réew mi yow waxal ci lii application yuy imposé te ñun doyewuñ ko dara bis bu nekk ñu di la ko dagg te amoo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 le directeur du Trésor, votre DAGE, mon frère Ibrahim Gueye, et mes deux sœurs Fadjane et Thérèse Faïdiouf. Euh, monsieur le ministre, vous me permettrez de vous féliciter pour la confiance renouvelée du chef de l'État. Mais aussi vous féliciter, Monsieur le ministre, pour la bonne tenue de nos finances depuis votre arrivée à la tête de ce département vai compétent et engagé au service de l'État. Monsieur le ministre, vous êtes un camarade